suufoo ab safaanam la ak sax yu aji tabe fiimaa ci la nga xam ne xiila waxeef na ko fakkun nekkal saxiyan di aji tabe laa tëppan bul nekk baxiilan di aji nay nee na la ñu wax ci ku nay safaan bu li ñu wax ne ci ku tabe ku tabe moom day jóge yàlla jóge àjjana jóge mbindeef yàlla yi sori safara yaa ani dana jublu ne ànd xoo naka moom yaa amuruka dana la digal bi anta soora ci ngay siyaare alxulama away xam ñi wa saalihiina away baax ña wa taxdimahum te nga leen di liggéeyal wa tatabarraka te ngay barkeelu minhum ci ñoom wa tasalhum te nga leen di laaj adduha a ñaan la waxan lay saraa mooy da lay digal ngay siyaare borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak gaa yu baax yi di leen liggéeyal ngir yàlla di barkeelu ci ñoom di sàkku ci ñoom ñu ñaanal la fa inna ijlaalal aalimi naka màggal aji xam min ijlaalillaahi bokk na ci màggal yàlla taala kawe na ndax nee na màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam ngir yàlla ba tey mi ngi bokk ci màggal yàlla wa annaka ak naka yow idaa saaxabta doon àndaale ngaat man koo xam ne xoo moom ak daru moo gën a màggee mën ko ci yow fii safarin moo xam ci tukki la aw xëyrihi wala xudul moom fa aasirahu na nga ko ëffal mooy na nga ko bàyyee bul firaash ci lal ba wajlis te nga toog ante yow xalal ardi ci kaw suuf wala tubaay ji wute bul tëddanteeg moom illaa li daruratin dara ngir lor nee na ba tey dalay dénk ba àndeeg koo xam ne moo la mag moo xam da ngeen di tukki moo xam nekku leen ci tukki lal ba mu toog rek na nga ko ko bàyyee dem toog ci suuf yow bañ a toog ak moom lu may nag daa mënta ñàkk fekkee daa mënta ñàkk nag moom tax nga toog ak moom wala mënta ñàkk tax bi ngeen di tukki nga toog ak moom ci benn banc ci oto bi ayu demee noonu loolu lépp moom loru jekk waral du wàññi dara wa isa qadima ndéem dikk na ilaykumaa jëm ci yéen ñaar sharaabun ak naan aw tahaamun wala aw ñam fala tasbiquhu bul ko jiitu ilayhi jëm ci moom abadan mukk wantazir na nga néggandiku maa la nga xam ne ya'muruka na la ko digal fii ci moom wa aasirhu te nanga ko ëffal bil jayyidi ci la gën a baax dama taxaami ca ñam wax nee na kooku nga xam ne moo la mag su ngeen àndee ba yàgg ñu indi leen ak lekk mbaag naan bu ko ci jiitu bu ko wax bu ci wax dara nëggal rek nëggandikul rek bam ne bismillah te bu ngeen tolloo ci jëfandiku li gën a baax ci ñam lañ ci gën a taamu nga di ko ko bàyyee fàtte sa bopp te bàyyee ko ko yow wax jëm xu nanga koy liggéeyal fii kulima ci lépp loo xam ne yaxtaaju dana aajo wa ilayhi jëm ci moom lépp loo xam ne soxlaam la rek moom kooku nga xam ne moo la mag doo ko ci taxawal ngir yàlla wa annaka am naka yow ida saaxabuta ndoom àndaale ngaat xawmun aw nit fii safarin ci biir ab tukki fakkun nekkal xaadimahum di aji liggéeyal leen waraaxita ngay sàmm rawaaxilahum seeni warukaay rawaaxi daa fi ay naaga ay gëléem ndax boobu lañ daan tukki ay gëléem waaye nag lu ñu tukki rek lay wax dee leen ko sàmmal waxaa doon te ngay bokk am ci xataxum seeni yéere muy seeni bagage masta tax te loo mën nee na ba tey boo àndee ku nit ngeen di tukki na nga leen di liggéeyal di leen sàmmal seeni warukaay di leen dimbali ci seeni bagage di ki waral leen ko sàmmal leen ko ngir yàlla loo mën wala toosir te bul tànn wala bul gënal addaxata loxoy kese war raaxata akum noof laay abadan mukk fa innahuma naka ñoom ñaar laa yatiyaan ba ñu dikkee bi xëyrin ci yow wala yëg loxo te deful jot almaji tedd nga illaa bil kat di ndara cib coona kama xila ni ki waxee fi lii nee na loxoy kese akum noof laay moom bul ko tamal sa bopp te bul ko taam bul ko taamul sa bopp ba tey anam daal toog loxoy kese akum noof laay bu ngoon sa mbir mukk ndax yooyu yaar duñ indi mukk lu baax ndax lu baax moom ci coono rek lañ ko mën a amee damaa xile ni ki waxee foon ne bi xadril taddi ci kem coono ba takk tasi bu ngay fàggoo almahaal yi kawee te waman tala ba ku sàkku alxulaa kawee sahira mu foog allayaali guddi ya mu ne nee nañu kem ni nga sonni rek ngay amee lu baax kon nag boo di wut lu baax sonnal bu baax a baax na nga sonni rek ngay amee te ku wut lu baax mu war laa jaral yàq say nelaw taroo mu danga sàkku alma ci da tedd nga su ma tanaa mu topp nga nelaw lay leen ci guddi la xadd ak maata kon xemmam loo nga naf saka sa bopp fil mu xaali ci lu jomb nee na boo dee wut lu baax ba noppi jëriñ la yàq say nelaw kon yaa ngi dëggloo sa bopp lu jomb mooy loolu mooy loolu nga bëgg rek mënta nekk wala amuru ko te mu lay digal bi an laa tabxale ci nga bañ a nay bi shay'in ci dara mën a dunya ci àdduna fa innahu baxiilun naka aju nay ba'iidun aji sori la minallahi ci yàlla ba'iidun te aji sori la minan naas ci nit ñi ba'iidun te aji sori la minal jannati ci àjjana xariibun te aji jege la minan naari ci safara wa bi xaksihi te nekk na ci ab safaanam ak sax yu aji tabe yeneen mi ngi lay digal yu fi àdduna yi nga bañ cee may ndax ku may moom day sori yàlla sori àjjana sori nit ñi ba noppi na jege safara ab safaanam nag mooy ku tabe tabe mooy tabe ci ñaqam tabe ci alalam ngir yàlla ku ko def dangay jege yàlla jege àjjana jege nit ñi sori safara waqat xaala waxoon na ashaahiru ajoy ja amalekat bu ne woon ida kaanat ndem nekk na al amwaalu alal yi li tarki di ñeel ak bàyyi jam uhaa boole seen fama baalu matrukin ana luy solos lu ñuy bàyyi loo xam ne almar o cam sa yobbu xalu dana nay bisi ci moom kooku dana woon bu fekki alal yëpp fi lañ koy bàyyi kenn du ñu baale dara luñ fi bàyyi dem rek lu jar nay ci wa ak moom na nga teral al abdiyaa fa gan ña bu parxi bi ci yaatal wa bil xiraa ak ci barndeel wal bishri ak mbég wa taqlil ak lu jegeñal nee na mi ngi lay dénk boo amee gan nga yaagal ko ganale ko wan ko mbégte ak lu jegeñal sa bopp te yàlla rek tax laa yastadiq bu mu xat lépp day fi ngir gan min ko ci yow alkalkalu laa yastadiq bu mu xat lépp day fi ngir gan min ko ci yow alkalkalu xol ba alkalkalu xol ba fa innahu naka moom gan gi yar xalu dana laxas laxas mooy dana dem rek xam naa xariiriñ ci gannaaw diir bu gàtt nee na boo amee gan na bi sëb dënn yaatu bu ci sëb dënn xat ndax ndegam moom lee mu dem loolu jarul xatoo ko naqaralu wa fi xadiisil Mustafa nekk na ci hadiisub ko ñu tànn sàllaa yàlla ndol tedd nga alilaahu buur bi alayhi ci moom bil aali ànd ak ñoom ña wa kulli man ak képp koo xam ne talaahu topp na ko man kaana yoominu man kaana yoominu wa xaalate waxoon na it alqaayilu aji wax ja ne wat bay fa gan akram bu teral ko bi baxaril kaamil yi bu waxee ko nag ci baxarul kaamil loo mu la digal ci teral gan la wax ne yonente bi wax na ci hadiisam man kaana yoominu da nga ko gis léegi ci biir salaa bi am na waxkat tam bu tàmbalee waxam wat bay fa akrahu da ko woy nag waaye da ko daaji ci baxarul kaamil kaamil jéem wax aw daaj la ni rabas amoo daaj kaamil tam aw daaj la ci xeeti yooyu yaa ani dana jublu ne annahu naka moom yaa amara ko na la digal bi ikraami bay fi ci teral gan wa tarxiid ak yaatal bi ci gan gi wa bi an laa tastadiqa ak ci nga bañ a xab bi ci moom fa innahu naka moom murtaxil aji laxas la laa maxaalat amul benn sikki sàkka waxat xaalate waxoon na wonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne man kaana ku nekk mu ñu digam billahi ci yàlla wal yawmi ak bés ba al axiri bi aju mujj fal yukrim nay teral bay fahoo ganam mu ne dalay digal rek ngay teral gan di ko yaatal te bañ caaxat ndax léegi mu dem ndax yonent bi neen woon koo xam ne gëm nga ne yàlla am na bis penc bi ñëw ñu fay la say jëf kon nee na boo amee gan nañ ko teral ngir yàlla wa qaala waxoon na achaahir wooykat ba min baxaril kaamil ci baxarul kaamil ne wat bay fa gan ak rimhu teral ko fa inna mabitahu naka panaanam ma xaqun àq la ji la war wala takku te bul nekk loonatan di ab rëbbukaay mooy di ab boolukaay lim mus li ñeel way wàcc ña way wàcc ña mën nga ne lim mus li ñeel gan ña rek danga soo amee gan na nga ko teral ndax fat ko defal ko panaan bu baax kat àq la joo ko ameel bul def nag koo xam ne ku la ganesi rek bu demee dina mbooloo ko rëbbu bul ko def waalam na nga xam bi ànd nag bay fa ci naka gan muxbiru ahlihi aji xibaar la ñoñam bi ma baytihi ci panaanam abadan faaw wa in lam yusal ab doonte laajee fukk ko mu ne xam ne gan moom noo ko defee rek bu demee dana ko nettali doonte laaj laaj ñu ko dina ko wax ñuy dégg. wala yi na nga taseeg moom bil bashashati ci mbëtte nga wax belli rek waaye mbëtte benn la wa talaaqati wacci ak taalik kanam faqat xiila waxees na ne innahuma naka ñoom ñaar xayrun ñoo gën ñu xiraa ci barndeel ne gan gee buy ñëw na nga taseel moom ci xarkanam bu tàll ak mbégte ndax mu xam yow mi bëgg nga ci moom ndax loolu sax nee nañu moo gën la nga koy ganalee ci xeetu lekk ak naan yooyu waxa léegi nekk na ci loolu xawlu shaahir yi wax yooyu kat ba ne bashashatu wajhil mar'i tàllik xarkanama com si danaa nekk itam mbégteem xar kanamu cam si xayrun moo gën nu ma xiraa ci berndeel fa kay fa bunam naka la ci ka nga xam ne yo tii dana dëkk bi ci moom wax wa te mbir moom moom baaxikun ajree la nee na sa xar kanam tàlli digan gi ñëw mu xam ne bëgg nga ci moom moo gën la nga koy ganalee mu ne kon boog bu dee dikk ngay ree weesu rek mbégte xanaa di ree kon loolu kon na daal di nekk lu baax lool ñu wax ne waqaala wax na aaxaru kaneen am na ku ne bu baaxi ko dinaa reexanteeg bay fii sama gan qabla inzaali raxlihi ci njëkk wàcceeg raxlaam wa wax si bi tamit naat hindi fa man wal maxallu te béréb ba jot yi dum aji dekkoor la nee na sama gan bu dee wàcc rek dane sama gan moom balaa wàcce bagaasam rek raxla teg lay fii te ñu daan teg ci gëléem yi moo tudd raxla donc maanaam day wax ni sama gan balaa wàccee bagaasam rek ma tàmbalee reexanteel moom doonte tey naa ci diggante it duma ko woon ne ko naqar jamono damaa jàpp mbaalu ko muru bu ko xam ci man daal ndax su ma defee nag mbégte moo ko wan wala su tubeet man bi xawaa lim may aw waxaa kon ibab bay fu ndeem gan nga xàll wàcc na bii ci man ne ko tara xàll laxasal laxasal may demal fa inal xaya naka gàdd ga xaribu aji jege la min ko ci yow ñun dama koo xam ne su gan ñëwee rek mën naa ko foofu nga jëm soriwut mel ne kuy dàq dàqu teraanga déedéet wa qaala wax na aaxaru kanaan ne man si li naa suñu kër raxbun aji yaatu la li ma ñeel ka nga xam ne zaarahoo siyaare na ko ndax na man sawaawun way yemoo la nu fii ci moom wa taariqu ak aji rañaan nee na suñu kër kër bu yaatu la ku fi dikk rek nooy yow noo ci yemoo donc gan mu fi ñëw daal nooy nooy yow ñun ñu fi dëkk ak yow noo ci yemoo rek wa kullu ma lépp loo xam ne fii nekk na ci kër gi xalaalun aji lew la loxoo ñeel gan illal la fi bari la nga xam ne xaramaxoo araamal na ko alxaaliqu aji bind ji nee na lépp lu nekk ci kër gi rek bu gan gi ñëwee sañ a waaxu sàkk ba mu des li nga xam ne yàllaa ko aaye mel ne soxna wala jigéen ji fi nekk te lowu ko moom sañ te waaxu sàkk waaye loolu yàlla moom du noonu wala tax taarikan di aji bàyyi fii ku yow nañ ci bépp bis taxal lu mën xam lu su ma amal topp na nga jëfee bisi ci moom naa si kan mbir mi ngay aji jaamu nee na bis bu nekk dooy jéem a dolli ko xam lu baax te lépp loo xam ci lu baax di ko jéem a jëfee kon xam-xam moom bis bu ne dool jéem a yokk xam loo xamutoon te loo xam rek fas ko yéene jëfe ngir yàlla falxee mu xam-xam yuux yi dana dundal xalba man xolub ka nga xam ne taxal la ma xam lu na ko yu naw ru dana leeral al xalba xol ba kama yejuloo ni ki muy wuññee wuññ mooy muri alxamaa ngumba xol nee na xam-xam day dundal xol di leeral xol bu fekkee xol ba dafa mel ni lu gumba mënta gis xam-xam bi da koy daal di muri ba mën a gis waa alam na nga xam bi annama tafawutul wara ci naka rawante mbindeef yi yokkoon dana nekk bil xilmi ci xam-xam wa diini ak diine fas biran na nga muy mooy na la wóor ne nag nit ñi ñu ngi rawante ci xam lu baax ak diine maanaam xam lu baax ak di ko def daal ci la nit ñi rawante kon képp koo xam ne moo gën a xam diine la yàlla bëgg gën caa taxaw te ngi yàlla rek tax kooka mooy ka gën boo gis maa ci yow yaar yof dulu lay gëne man ka nga xam ne xadd fa bala gën na laa bin ci saadu yi du caa génn ci askanoom nga li man jëm ci koo xam ne xaddi antalaa kawe na min jihatil ansaa bi ci wàlli askan ya um min te mooy ndeyoo abin ak baay faj taxit na nga farlu fii maa ci ñëw ñaar maxatta àllu bi ànd ak teggeenu nee na képp ku gën rek ci yaay yi la gëne mooy xam lu baax ak farlu ci def ko waaye bokk ci askan bu baax ni ki ndey bu baax mbaa baay bu baax wala maam ju baax rek taxut a gën teewul nag am askan bu baax dafa mel ne ak tos tos mooy tool bu baax su fekkee farlu nga béy gën a baax li ñëpp ak tool boo sàgganee nag moom ëpp la ñëpp ñax gën a gàntale ñëpp moo tax mu ne kon farlu bu baax ci xam ci xam-xam ak diine te ànd ak teggin wa in taalamta ndeem nam ngaa xam lu farsa in nga dimbandikoo billahi ci yàlla suma bi ixlaasin topp ci sellal bi xal bin ci xol natt na inin bi aju dal ñu ne boo bëggee xam lu nag xanaa boo bëggee jàng ah da nga ci daldi jublu te sàkku ci yàlla mu dimbal la ca da nga sellal ci sa xol mooy yàlla dong tax nga wut xam-xam bi te sa xol dal ca bul firi firi ngir yëfi adduna mbaa dara mooy na nga ci ànd ak xol bu dal ci xam-xam bi ngay jàng te yàlla rek tax wa bi mulaazamati darsin ak ci taqoo jàng wa waraxin ak ak sàmm na boo dee jàng xam-xam da ngay taqoo foo toll di jàng te am ak sàmm sa sàmm moo di dañoo jële luy araam yi sax waaye yi nga xam ne moo lënt sax danga koy sori ndax na ndegam xam-xam leer la boo dee def lu araam baa lu lënt lëndmaayu lu araam loolu lënt li day dox diggante leeru xam-xam gi ba du jàll si kon sàmm googu lu ci baax la waqilati noomi ak néewi nelaw waqilati shibahi ak néewu regg ne boo dee jàng da ngay néewal say nelaw maanaam di nelaw rek lu yem loo xam ne na sàmm sa wéru yaram nga des nag nga nekk di ko jàng néewu regg mooy di lekk rek loo xam ne yem na bala ngaa regg rek bàyyi boo ko defee da nga sawar waaye boo dee regg saa yu nekk rek da ngay tàyyeel ba noppi sum xel day naqari wala mbokk lan tam lee nga fëtt ko fa dum na nga sax xalaat dal si ci jàng ma xam takraay ànd ko baa mu fiimaa ci la nga xam ne xaraataxoo jàngoon nga ko bilaa iddibaari ci lii ak dëddu nee na lépp loo jàng ba noppi da nga koy toppaat di ko jàngaat te bañ koo bàyyi wa xaalis te nga jiwanteeg an naf sa bakkan ba fa inna naf sa naka bakkan ba am maara ab diglewaa kon la dinaa ci la nga xam ne yajuru dana ñoddi xabsan ak tëj waaw nee na nga jiwanteeg sa bakkan ndax sa bakkan moom ak taayeel rek lay jëm ak lay jël musiba kon day jiwanteeg moom loolu mu dee sax ci njàng mi waaye day wane ne sa bind ci boppam ak la nga jàng ba weesu ko lu ci mën doon rek dee ko jàng ko jàngaat te ba nga topp sa bakkan ci taayeelam waqal yil te nga néewal arruqaada nelaw faariq na nga tàggoog alkasala taayeel waqal yil te nga néewal arraaxata naflaay xasir na nga gàttal al amala ma wét na yéena néewal say nelaw nelaw lu yem rek lu mën a sàmm sa wér la des na nga nekk ca njàng ma soril taayeel taayeel baaxut néewalal am nooflaay nooflaay amul njëriñ gàttalal say mébét mooy bul defee ne kuy gudd fan ngay doon lu nekk nga defee ne ko am ci kanam loolu day tax doo farlu ci njàng mi doo farlu ci lu baax ndax da ngay jàpp ne danga gudd fan rek yow mën a def ne tey naa bàyyi ba ëllëg wala ama jot tey naa bàyyi ba ëllëg loolu moo tax kon nga gàttal say mébét waalam na nga xam bi ànd man ci naka koo xam ne abaabañ na ak taxal lu ma xam lu waxta sibaaxu ci waxtu ndawam sayu laaqi xalsat naa taseeg na daman reccu mais képp koo xam ne bi ngay ndaw nag mën ngaa jàng waaye defoo ko nee na boo doonee mag da nga ko réccu da nga dem ba réccu ji ko ko bi ngir kulla man képp koo xam ne la mu yetta baadaru gaawoon tuut yén xoloo mu jëm ca xam-xam ya maxa tabarruxin ànd ku féex laxaa ñal xam-xam yi xajal xumu ci njëkk yitte yi falaa yenaalu bu am xaaliban ci la gën a bari mappaloo ba koo càkkuteefam min fu ca moom waaye nag min xaa moo gën a yàlla ci alxoloo mi ci waxoon wala si yaxtaw yi te du làq marakoo ba koo xemmanteefam ndax nee na da ngay doo ndaw am jot am xel am cawarte bu fekkee gaawoo jàng bàyyi bàyyi bay mag nga dëkk ko dawaatal lu ci ëpp ne la la rawan moom jeex na doo ko mën a daboote la nga ci bëgg dëgg dëgg daal doo ko ci mën a amati ndax waxtu wa nga ko waroon a wut da nga ko ci awutut waaw ibi ngir madaxoo tagg nañu taalluma sixaari xam lu gone ya di kaw ni ci nekkam kan naq si nit aw rëbb fil ahjaari ci doj leen dañoo tagg lool jàng ci ndaw ndax loo jàng ci sa ndaw bu mën ko bu baax a baax boo ko fàtteeti te mel nga fekkan aw doj nga rëdd ci wala ñu si di ko def ci xaalis bi nga yor rek la ñu rëdd ci kaw xaalis bi lu yàgg-yàgg dana yeex a far lool ci dërëm bi nga yor wa shabaxoo nurale nañu taallumal kibaari xam lu mag ña bil kat bi ci bind fooqal maay ci kaw ndox ma fil asaari ci jeexit ya mu ne nag njàngum mag moom dañu wax ne amul solo ni ngi nga bind ci ndox nga xam ne loo romb rek boo ko xamate waaye mag mi ñu wax nag mooy koo xam daa dem ba màggat ba xel mi naqari nopp yu naqari bët yu naqari waaye koo xam dem nga ba xaw mag yi nii rek maanaam toll ci waxambaane jëm ci kaw rek foofu ngay mën a jàng bu baax a baax ndax na nga xam ne yow sa bopp rek ngay jàngal bu ko def da nga ca farlu jox ko yitte waaye bu dee gone koo xam ne ñu ko bëggal njàng mi rek waaye moom ci bopp moom bëgg ko daanaka du tax njàng ma demee noonu yaa ani dana jëfi ni ànd xoo naka moom ya am rokot na lu dégal bi an laa tatruka ci nga bañ a bàyyi ak taalluma xam lu yow man ci benn bis ne la iyaami ci bis yi fa inal xilma naka xam-xam xayaatul xalbi moo di dund xol wa jalaawul xamaa te wuññu ngumba wuññu ngumba da ci jublu muri ak ngumba te ngumba ji jubloo ci ngumba bëti saahiri maanaam ngumba bu nekk ci xol ñàkk gi su xol lay wax naa xam-xam da koy muri wa nooru naf si tey leeru bakkan li waxoon lay faraa te day digal nga farlu ci jàng xam-xam bis bu nekk rek nga jéem a xam loo xamutoon te di ko jëfee ngir yàlla ndax nee na xam-xam day dundal sa xol day tax bu fekkee sa xol daa muuru woon mënta gis xam-xam bi muuru ko mën a gis day waral sa bakkantam damaa xile ni ki waxee foon ne alxilmu xam-xam fii nekk na ci moom xayaatul ak dund lil xoloo bi ñal xol ya damaa tax yaa ni kiy dunde albilaadi réew ya isa ma massaha ndéem laal na leen almataru taw ba am na ku ne xam-xam day dundal xol li nga xam ne moom la taw di dekkalaati suuf si bu suuf si demee ba bekkoor bu tawee rek mu daal di sax daal di naat noonu la xam-xam di def ci xol wal xilmu xam-xam yajiloo dana wuññ mooy dana muri alxamaa ngumba xan xal bi saaxibi yi walis xolub boroomam kama yu jël yi ni ki wuññee alxamaru war wa sawaada dulmati ñuulaayu la ngam nga nee na xam-xam bu fekkee xol boo xam ne daa meloon na lu muuru ngumba du gis xam-xam ba da ko muri moom xol ba du mën a gis ñi nga xam ne lu mu lënd lënd boo waree saqee rek léegi daal leer gi daal tas la ndam gi xam-xam it noonu lay dindee ak réer ci xolu borom min xilmi ci xam-xam tax yaa lay dindee xulóobin ay xol maa xarafat yoo xam ne mosuñoo xam xattu mukk min xam li ca bu jëkk mal farqu lan mooy teqale bay nal xaq ci diggante dëgg wal mooy ni ak fan mu ne am na ku ne xam-xam mooy tax nga gis xol yoo xam ne deewoon nañu wet mën nañoo xàmmee dëgg ak fen ñu wëlbatiku nag léegi dekki ba mën a xàmmee lan mooy dëgg ak lan mooy fen wala xil mu xam-xam ñuurul leer la li naf si ñeel bakkan bi parce que dillu dana tegtaloo bi ci moom xalal xaqaa'iq yi ci dëgg-dëgg ya nit la ñuuru kem leer lil xëy na ñeel bët nee na xam-xam leer la goo xam deewoon bakkan bi fa baraaw ñi nga xamee ne bët lu mën a mën a gis bu la nemee du gis leer rek na ko yoon moom bët bi mu door a gis xam-xam itam noonu lay leerale bakkan noonu lay leerale xol rek ba xol ba mën a gis wa annahu am naka moom yuallimuka na la xamal bi anna naasa ci naka nit ñi innama yatafaawatuuna naka danañu rawante bil xilmi ci xam-xam wa diine ak diine wa bihi te ci loolu rek bu defee wa bihi maa nag muy ci ñoom ñaar mu dellu ci xam-xam ak diine yu faddalu la dee si gënale man ka nga xam ne faddu la gënaleef na ko laa min jihatil ansaabi di caagénn ci wàlli askan ya li abin jëm ci baay wa ummin ak yaay moom da lay xamal ne la kat xam-xam ak diine ci la ñu rawantee waaye kenn du rawantee ci diwee ma jur di saa baay wala diwee saa maam wala diwee sama yaay yooyu yooyu tax ko am solo kama qaala ni ki waxee woon xaliyun xaliyu karama yàlla na doolee teral allahu yàlla woo ci xew jëmmam ja li alimaamu xaliyu nee na woon annaas nit ñi min jihati tamsiili ci wàllu misaal ak faawun ay nawle lañu abu mooy seen baay aadama mooy aadam wa ummu te ndey ja xawaa mooy xawaa dañu def sax abuhu mooy seen baay aadamum moo di aadam maas ko yaari maas ko ndax oye wa ummu te ndey ja xawaa mooy xawa fa in atay te ndeem dikki nga bi soxarin ci ndam min dawi xasabin lu bàyyi ko ci waroon ngor ngor mooy cosaan lu baax yu faaxiroona loolu danañu damoon ko bisi ci moom koy fàtteenu ban rek la yal maaw ak ndox aw yi dana yoon nit ñi boo ko dee seet ci wàllu ku leen jur rek moom ñoo yemoo dong ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp aadam mooy seen baay ñoom ñëpp xawa mooy seen ndey kon boo dee wax ne saa maam nangam ak nangam di tudd ay mbaaxam ak mbaaxam xam ne lu mu jëfoon rek la saxel ba jëf lu mel noonu mbaa lu ko raw waaye bu dul loolu kon yaa ngi demoo ci ban ak suuf rek ndax aadama mooy cosaan ñëpp te ñu ngi ko bindee ci ban ak suuf awal ñu génnee ko ci aadam kon loolu ndam nekkul foofu mal faxru déet ndam illaa li ahlil xilmi mbara muy ñeel ñoom xam-xam innahumoo naka ñoom adillaa u way tegtale lañu xalal xudaa ci jub li mu ñeel ko nga xam ne istahdaa sàkku naa jóg nee na kenn wërta dam waaye su ndam mënta ñàkk kon borom xam-xam yi te jëfi seen xam-xam ñoo war a damu ndax ñoom ñoo aw ci yoonu ba noppi ku bëgg ca aw ñu won la ko ba nga mën ca aw wa qadru kulli mri'in darajay sépp sa maamooy la nga xam ne kaanu nekk na yu sinuhoo di ko rafetal léegi kenn ku nekk la mu def ci lu baax ak la mu xam ci lu baax te farlu ci wut ko rek noonu la darajaam toll fal jaahiloon way réeruñu ahdaawun ay noonu lañu li ahlil xilmi ñeel ñu xam-xam nee na ñu xamul lu ci ëpp dañuy noonu ñu xam ndax li lu xamul dafay daal di noonu foofus na nga tuufu bi ay min ci xam-xam taxis kon nga dund xaw yoon mbir bu koy aji dund bi ci moom awaran faaw am naa su nit ñi mawtaa way dee lañu wa ahlil xilmi te ñu xam-xam ax yaawun way dund lañu nee na ko xel ba xam lu baax te farlu ci jëfe ko kon da nga dund dund koo xam ne boo dee it mel ne deexoo ndax ñu xamul moom donte ñu ngi dox ci suuf it moom ñu faatoo woon waaye ñu xam dëgg te am fexe ba am ngërëmul yàlla moom donte faat nañu it ñëpp faatu teyam ndax seeni jeex it lu fi jëw nag wa annahu am naka moom yuallim ko dina la xamal bi am na min na ci naka bokk na ci la nga xam ne yooyeen dana dimbale xala taxalu mu ci xam lu wa yusaxila te mu yombal sabilahu yoonam wa an tatawarraxa ngay sàmm ci ilm ko ci sa xam-xam wa tatlubahu te nga koy sàkku lillahi ngir yàlla wa qillatu nawmi ak néewug nelaw wa qillatu shibahi ak néewug regg wa malasamatu darsi ak taqoo jàng kama xila ni ki waxee fe ba tey nee na dalay xamal ne boo bëggee jàng la la ciy dimbale te la yombalal yoon wa moo nga amu sàmm bu baax danga jël yu araam yi waaye yu lënt yi sax nga di ko sori te xam-xam bi yàlla dong tax nga di ko wut su ko defee nga néewal sa say nelaw su ko defee nga néewal say nelaw néewal ak rek xanaa nelaw lu yem rek lekk lu yem rek su ko defee da nga sawar te doo wéradi su ko defee nga taxoo jàng nag foo toll rek di jàng kamaa xëy la ni ki waxee foon ne am na ku ne woon yaa taalibal xilmi yow aji sàkku xam-xam baadir na nga gaawal alwara a sàmm boo bàyyin te nga fàccoonteeg mooy te nga sorenteeg am naa mu nelaw wax jur te nga tong ak subaxa regaay wax dul te nga dëgmal xala darsu ci jàng laa tufaariqoo déet ngay tàggoo moom ndax fal xilmu xam-xam xaama taxawee na bit darsu ci jàng war tafaxate mu yëkkati woo ca kooku dana woon yow mu wut xam-xam na nga daal di gaaw amuk sàmm mooy di moytu lépp lu lënt rawante lu araam ndax lu lënt mbaa lu araam day am lëndëm goo xam ne mooy dox sa digganteeg leeru xam-xam kon nag na nga fexe ba sori lu lënt ak lu araam nelaw na nga koy sori regg na nga koy sori lu ci nekk dee ci def lu yem rek muy nelaw muy regg muy lekk dama dee ci def lu yem su ko defee nga dëgmal njàng mi bañ a bàyyi foo toll rek nekk ci ndax xam-xam kat ñu ngi koy amee ci jàng rek ak sax ci njàng ma wa bi am na fa ak ci naka yow laa budda mënta ñàkk lakañ yàlla mën a darsu ci jàng wa kasrati takraari ak bari baamu wa xaalis tana nga jiwanteeg am na sa bakkan boo fi zaalika ci loolee ba tey neen day xamal ne la rek du mën a ñàkk foo toll di jàng ak di toppaat li nga jàngoon sa bakkan nag moom day tayel waaye boo ko topp ci tayel gi damaa xëy la ni ki waxee foon ne xal yi ya yow sama xarit laa tak sal bul tayel wala tuxumil te bul neenal mooy bul néglisé ak darsa dund ba wala njàng ma wala tonti te bul jox ak naf sa bakkan ba tawxan ak topp fii bataalatihaa ci tayelam kooku dana woon sama xarit bul tayel bul néglisé sa njàng bu topp sa bakkan ci ni mbëggum noflaay lim ci bëgg rek nga jox ko déedéet wala tatruk te bul bàyyi at takraara baamu nga fiimaa ci la nga xam ne xabistahu wattu nga ko wattu mooy mokkal waman taraka ku bàyyi at takraara baamu laa budda mënta ñàkk ay yan saa mu fàtte mais kooku daa waxoon ne la nga xas mel ne xam nga ko mokkal nga ko bul tax nga bàyyi ko dee ko toppaat ndax lépp loo bàyyi toppaatoo ko rek léegi nga fëtt ko mbaa nga fàtte ko wa bi ànd man ak ci naka koo xam ne lam yu daa dir gaawut ak taalluma xam la wala tafarraxa te muy féex la xoo ñeel ko fii si baaxu ci ndawam nga xal la ay yanaa la néewaanam am mattboo baxoo càkkuteefam min hu ci moom wayu xas si la tamit amal maraxoo baxoo xamanteefam min hu ci moom li ànd ak taalluma ngir naka xam la fii si xaru ci ndaw te naq si mi mel ne ki rëbb fil xajari ci doj wa taalluma xam la it fil kibari ci mag kal kaddu mi ngi mel ne ki bind xalal maay ci kawam ndox nee na tey dalay dénk nga góorgóorlu di nga dee ndaw am cawarte am wér amu féex nga gaaw jàng te bañ a bàyyee bàyyi ba nekk mag ndax nee na njàngam gone moom nee nañ lu ko mën rek bu wér a wér dafay sax du ko fàtte waaye njàngam mag nag moom lu njàng yi day daal di dem mel rek ko dund ci ndox loo ko si romb rek doo ko xamante xaala wax na wax bi suxaraay lenn ci waykat yi ne araaniya danaa gis sama bopp araaniya danaa gis saa bopp an saa may fàtte maa la nga xam ne taalamtu xam la woon naa ko fil kibari ci mag wala stude déet man dinaa si muy aji fàtte maa la nga xam ne taalamtu xam la woon naa ko fi si xari ci ndaw kooku dana woon man day seetlu naa ne la ma jàngan ci ndaw moom ba léegi fàttewu ma ko dafa sax waaye li ma jàngan ci mag moom dama koy fàtte rek wamal xilmu déet xam-xam illaa di taalumi dara muy nekk ci xam lu fi sibaa ci ndaw wamal xilmu déet lawat illaa bi taxallumi dara muy nekk ci lawat lawat lu fil kibari ci mag dana xam naa ni daal xam-xam dëgg moom des koy jàng ci ndaw waaye ak mag moom mënees ko cee jàng xam naa ne itam jikkoy lawat ak kuy yaaramit nawa koy gën a mën ndaw ndax ndaw moom day defe lu nekk mën na ko dafa ne jaasamaay si doon daanu mën koo taaw wala fulixa doonte xaree foon na alxal bu xol ba almuallam ba dëgg xamal fis ci baay ci ndaw la ulfiya kon fekkee fii ci moom alxil mu xam-xam ba kan naqshi mel ne ki rëdd fil xajari ci doj nee na gone lu ñu ko jàngaloon ci ndaw lu yàgg yàgg wuñ xaram xol ba itam fekk ko ca day mel na rek nga fekk aw dot nga rëdd ca mbaa xaalis bi ñuy jëfandikoo la ñu rëdd ca kaw mbaa lañ cee desin lu yàgg yàgg rek danga yeex a far ca dërëm yooyu nga yoro mais la cay nekk ci ndund wala lañ ca desin mel ni nit da cay nekk saa yu nekk lu njàngum gone nag noonu lay mel wamal xil mu déet xam-xam bax da chey bi ci gannaaw bu jaaw ba illaa taasufan dara mu di ak fétal ida kalla ndeem lott na xalbul mar i xolub camsa wa samhu ak dégg ga wal basaru ak gis ba nee na nit ki nag bu demee ba màggat ba bu jaaw xolam mënta jàppati lu bari nopp yi neexatul bët yi neexatul mu bëgg a jàng nag foofu moom nee na njàng ma bu aw yoon ndi sax bu fekkee day door a weesu ak nee na nit ki nag bu demee ba màggat ba bu jaaw xolam mënta jàppati lu bari nopp yi neexatul bët yi neexatul mu bëgg a jàng nag foofu moom nee na njàng ma bu aw yoon ndi sax bu fekkee day door a weesu ak ak ndaw nii rek moom jëm ci mag foofu lay mën a jàngee bu baax moom ni ñu ko waxee woon ndax day xam ne bopp mu lay jàngal ko defee lu nekk mu farlu ca xam ko bu baax bu dee ndaw loo xam ne ñu ko caa yëgg rek di ko ca xiirtal waaye moom xëy na amu ca bëgg nag moom ba mu doon doon daw njàng ma du demee noonu wala mar u dit astam illis naan dara muy yaar xaqlun te moo di am xel wa mantiqun aku làmmiñ fa man faatixoo koo xam ne raw na ko haza lii wa haza ak lii faqat damara kon alku na nit nee na yaar rek la am xel mu rafet mu mën a xalaat am làmmiñ yoo xam ne mën naa leeral tam li xel mi xalaat yooyu yaar moom nee na bu ko nit amee rek nit ku sottee ngoog la def nag mooy tënu tënu tënu yaram ba mooy nam mel noonu ci zaahir rek amu ci solo yaar yi moom ku mu raw mooy xel mu rafet ak làmmiñ wu leer foo mën a nettali la xel ma xalaat rek nee na yaar yi ku mu raw rek tëm daa fa nekk waaye du nit ku mat a mat nit ku mat nekku fa waa lam xamal bi ànd na xel ma ci naka xam-xam saabun aji jafe la laayu naalu def ko am illaa bi xabsi nafsi dara ci tëj bakkan mën ngaa wax itam dara ci téye bakkan xam xiilin walis xiila waxeef na waqaalin ak xaal wax na mooy nag na nga xam ne xam-xam lu jafe-jafe la bu ñu su ko am lu may ci mën a téye sa bopp ci déglu wax yi naa nee nañu diw nee na xiila waxeef na mooy loo xam ne xamuñu ko ko wax xaal wax na mooy loo xam ne xam nañ ko ko wax mu ne xam-xam ne bala nga ko mën a am faaw ngay sori garam place yeeg fi ñu ñuy tase ah nee nañu ak diw nee na ak nangam ak nangam wala yu niilu te du jox ahadan kenn ba adaxu lennam ak dëxëra ci jenn jamono maalam yeexëg li fekk mayut lahu ñeel ko aljamiha léppam waj dëxëra te mu farlu mu ne xam-xam day mel ni day ko am fulla lool ndax balaa nangoo jox lennam yow danga koy jox sa lépp danga koy jox sa lépp mu jarala lu ne foo toll nekk ca mu door laa jox sax lennam waaye li fekk joxoo ko si lépp moom du la jox sax lennam fa axti yi kon nanga ko jox ku lekk si lépp bilaa nisaa in ci lu dul xëccoo kon nag yow mi jàng sax kon yow mi jàng sa yitte jëpp nanga ko jëmee ci xam-xam bi bañ caa bàyyi dara fas xër na nga foog lay la ko sa guddi wala tu jaw ya te nga xiifal battana ko sa biir wala ma te nga mar nga xëra ko sa bëccëg wal tut xib te nga sonal bi ci moom kulul jiwaari xi mboolem cër yi maxatta àbb bi ànd ak te génnu kon nee nañu la xam-xam du jaral yàq say nelaw ngay xiif itam muy lekk rek lu yem bañ a regg ndax niñ ko wax waxe woon boo dee regg rawatina taqoo ko saa yu nekk suñ xel di naqari loo makkaloon daal di koy sott kon na ngay xiif ak a mar lu ci nekk nga def ko muy lu digg doomu mu jaral lu ne nga ci sonn ci xam-xam bi ànd ak sàmm teggin nee na noonu lañ ko wutee man lam warugu koo xam ne sakkoowu ko xayma zaaliki nii laa yabbaw kon du tuufu min ko ci moom bitaa ilin ci lu am njëriñ gazaaka naka noo axbaroo lañ ko xibaare mu ne koo xam ne wutewu ko nii nag bu dee am itam du ci am lu am solo noonu daal lañ ko waxee wa axbaroo xibaar nañu aydan ba tey bi am na xoo ci naka xam-xam nafuurun ab foñaakoon la foñ mooy daw neen jur gu rabe jur gu rabe mooy jur goo xam ne bu ko wutee muy daw falaa yi naa lu du ko am si waa fatan ndari as can saboorin ku di ab mu ñaakoon mu ne wax ni ne xam-xam daa mel ne ak jur goo xam ne day dafa rabe mooy boo day wuti ko rek ma fu saa yoo wutee rek muy daw nga xam nañ ko naxtaan ndànk ndànk bañ a bañ a daaj ci bañ a yokki ba keroog koy jàpp nga xam-xam it noonu la mel wadum na nga sax xalaat tawaaduhin ci toroxlu bil imtihaani ànd ak doydal sa bopp waxtu taxallumi ci waxtu xam lu wax tanal kon nga am nuural janaani leeru xol nee na boo dee jàng dangay ànd ko woyof ko defee itam bañ a taamu ci sa wàllug lekk wala sa wàllug col wala sa wàllug nekkuwaay ak wax ji ngay jàng daal na nga ànd ko woyof la te lépp loo am rek mu doy la su ko defee kon na nga am xam na nga amug leer fal mutaallimu aji xam lu ja ida takabbara ndéem réylu na falaa yanaalu du am ak dafara toofu bil muraadi ca nummeel nga nee na ki nga xam ne mu wut xam-xam bu réy rek du am lam bëgg ndax réy gi mën naa tax sax lu mu xamut far réy ba lawi ko dafa demee noonu awoyof daal moo koy taxaam la muy wut daa na nga bàyyi ak tarafuha yaatlu ci sab dund yaatu lu ci sa dund mooy bëgg dund bu yaatu boo xam ne da ngay taamu la ngay lekk taamu la ngay sol taamu fa ngay tëdd mbaa na ngay mel yëpp nee na nga koy teg fee moom bul taamu dara loota sol rek baax na wala tajlis te bul toog abarin mukk xalaa firaashin ci kaw ab lal xalaa firaashin ci kaw ab lal waxtaxoo ci waxtu xam lu ga bilaa naka biñ ci ludul tiis danga boo dee jàng na ngay toog ci suuf bu fekkee dara dalul la sunu bopp daal na nga toog ci suuf te bul toog ci lool bul tëdd itam na nga toog rek waaye nag bu fekkee da ngaa sonn nag mën ngaa tëdd noppalu boo wéradee it noonu wal tajima te na nga boole alhimmata yitte ja fii maa ci la nga xam ne tàptalu bu da nga ko sàkku bilal tifaatin julul geestu li siwaa maa jëm ci ludul la nga xam ne yow jëbri na war nee na sa yitte jëpp na nga ko jëmee ci li nga wut rek nga xam-xam bi bu geestu dara loo xam ne sa yoon nekku ca wala takunte bul nekk tas dimaa hindi borom bu déglu lin naa si jëm ci nit ñi wala la si ak jëm ci la nga xam ne moom ñoom nit ñi fii nekk nañ ca min ni zaahin ci xëccoo nee na nit ñi bu leen di déglu baa ngay am soxla ci la ñuy wax ak la ñuy def lépp loo xam daal moom du xam-xam bi day wut rek bu ca soo yoon nekk wala tu wax xira te bul yeexe attaaxal lu ma xam lu wala takun te bul nekk mu sawi fan di aji nit nigal néeg nigal mooy di aji yeexamtalu bii ci moom doxaleen ci jenn jamono ilaa tafarruxin ba ci ak féex min jumlati ashxaali ci mboolem soxla yi indiwum te dem sàkku nga antal xaqa nga dabi nga joti biir rijaali ci góor ña waaw nee na waxtu ba nga war a jàng rek na nga ci fexe ba jàng ca te boo ko waxee naa day nit ba waxtu sàngam mbaa tey dama am soxla mbaa nangam loolu mooy nit néegal nit néegal mooy yoo xam te lu naat dama bari soxla mooy nag bu ëllëg mbaa nangam yépp daal nee na boo bëggee àgg ci góor ña bul def loolu fa inna li duniyaa naka ñeel na àdduna xumaamun ay yitte tam naa mooy danañu tere ñu ne xuddaay ci jóg wax yitte ñoom yitte yooyu laa tan xataxu duñu dokk ñu ne àdduna daa bari yitte yitte yoo xam ne àdduna daa bari yitte bari goo xam ne yéemi naa loo loo song ba daan ko rek ci yitte yi jëleen yitte taxaw bi sa kanam kon nag sa xel boobu la yitte àdduna yi gàllankoor ci xam lu baax ak jëf lu baax wal mawtu te dee yati dana dikkee baax da dan ci bette am it baax da dan mbir mu ngi aji bette wara ba maa yekkoonu baraana mu nekk moxtari man di aju dog daa chawaaxirin boroomi soxla nee na dee day bette lool te sax xëy na mu fekk nit ki ci soxla yoo xam ne yu ko ñor la di ci yëngatu ba fàtte lépp day jekki-jekki rek far ko këf loolu nag moo tax kon bu la yitee at bi fàbbi ba teelaa jàng teelaa def lu baax yaa ni dana jublu ni am na xilma naka xam-xam saabun aji jafe la xasiisun te aji tedd la ba tey maxanaay mooy aji jafe rek laawu naaw lii su ko am illaa bi xab si naf si dara ci téye bakkan ba la neexi wax téye bu la neexi wax tëj xam mulaqaat ni walis tefeenteeg nit ñi leen lay xamal rek ne la xam-xam moom lu jafe-jafe la yombut am faaw boo ko dee wut da ngay mën a muñ garam place yeeg jataay yi ñu waxtaanee di nett lekk yooyu da ngay mën a sori béréb yooyu dangoo wut dangoo beru wa annahu ak naka moom laa yonti ka du la jox ba'dahu lennam xataa tuutiyeexoo ba te nga ko joxee kulla ka sa lépp waa nee na xam-xam day ko am fulla balaa nangoo jox lan ci boppam danga koy jox yow si lépp féete moom benn yoon waman lam yu jaw wi koo xam ne xiifalut fii ci moom bappanaxoo biiram wa yasxaru tamuy fab laylaxoo guddeem wa waddma tamuy mar nihaaraxoo bëccëgam wa wit xib tamuy samal jawaarixaxoo ay cëram lam wadd farakoon du tuufu min xu ci moom bitaa ilin ci lu am njëriñ li amal xilma ngir naka xam-xam na xóorun ab fañaakon la laa yanaaluxoo du ko am illaa saboorun ndare ab muñaakon nee na faaw lay jaral di xiif ak a mar di ci sonn guddeeg bëccëg waaye nee na bu fekkee defoo ko rek doo jaam lu am solo ndax xam-xam dafa mel ne ak jur ko rabe koo xam ne yóbbu te jàpp nga koy naxtaan di ci topp di ci topp ba kiram koy jàpp waaye boo gaawee tàcc rek doo ko jot xaala wax na ashaah yu ajooye ja ne ëttlub na nga sàkku wala tadd jarate bul waqat min matlabin ci càkkutéef fa aafat daali bi gàkkub aji sàkku an yadd jara moo di mu waqat nee na kooku dane woon waykat dana woon wutul te bul dàcc ci la ngay wut lu métti métti rek demal te bul deltu gannaaw lu yàqal ci wut daal mooy rek mu gaaw a dàcc gaaw a doyal gaaw a deltu gannaaw amaa dara ndax doo gis alxabla buum nga xadd astara muy jeexital li takraari yi ngir ak baamoom fi saxarat ca doj wa assama yooyu aji tax mu ne xanaa gisoo pind boobu mu pindub teen bi pindub teen bi mooy ñuy bu gàtt boobu di wër teen bi te bu dëgër lay doon waaye nee na bët bi muy buum gi ñu yóggee bari gam ci bari la bomb dama ko dikk rek day mujj boo xoolee xam ne fii buum gee fii bomb te gis nga kon la muy dëgër dëgër teewut buum gi def na ci jeexit moo ne ne mbir lu mu jafeñ-jafeñ tam boo ko déewut boo jàppee te bañ te bañ a bàyyi rek la nga am ci buntu soobee yàlla wa annal muta'allima ak naka aji xam lu ja laa budda mënta ñàkk la xoo ñeel ko mina tawaaduxi ci toroxlu wal imtihaani ak doyadal boppam si taxal bi ci xam la ga wa illaa ndéem déet yow yow defar kon du tuufu min ko ci moom bi muraadi xii ci na melam ba tey ne dalay xamal ne la boo dee jàng faaw nga am woyof amat doyadal sa bopp ci bañ a taamu ci niñ ko waxewoon fa xale yi war na ko ay yatruka mu bàyyi ab tarafuxa yaatal ab dundam wala ab tarafuxa yaatlu ci aw dundinam maanaam bu nekk di taamu ci aw dundinam xeeti lekk ak colom yi demee noonu wala yajlisa te du toog ala firaashin ci ko ab lal abadan mukk waxtu taxallumihi ci waxtu xamlam wa illaa li daruratin dara ngir lor faadixatin ji aji diis waxtu mi jàng daal nee na na toog fi suuf te bañ a tëdd ci lal waaye nag bu fekkee dafa sonn bopp ba am wérut nag moom kon say ba mu tëdd ci lal wa wajima na nga boole himmatika sa yitti waxta xiraatika ci waxtu sa jàng fii maa ci la nga xam ne taqraw da nga ko jàng wala taltafit te bul geestu ila si waaxu jëm ci lu moom wala tastami te bul déglu ila naa si jëm ci nit ñi wama ak la nga xam ne xum ñoom nit ñi fii nekk nañu ca nee na sa yitte jëpp na nekk ci li ngay jàng doonte sax heure yi ngay jàng du ko tax a bari lool ngay farlu rek moom ci waxtu la ngay jàng moom sam xel ak sa lépp rek nekk ci la ngay jàng doonte waxtu gàtt na it du ko tee baax soo ko may def saa yu nekk nag kon lay gën moom waaye nee na bul geestu lu may njàng mi bul geesu nit ñi ak la ñuy wax ak la ñuy def ak seen mbir ñu naan nangam daa xew ak yooyu xew ñu cay soow yépp daal yow bu ci soow yoon nekk wa annahu ak naka moom yuus yi ka ñu la dénk bi an laa tuwaxira ci nga bañ a yeexe ak taxal lu ma xamlu waxtu saw yi fa te ngay niig niigal niig niigal ba tey mooy yaxamte woon ndax mi ngi bàyyi koo ci saw fa xalsat naa nangam waxtu saw yi fa te ngay niig niigal mooy te ngay yaxamte lu fii ci moom ilal faraaxi ba ci ak féex nil ashxaali ci soxla fa innahu moom addunya naka yitte adduna yi laatum xataxu ba ñu dog abadan mukk nee itam mi ngi lay dénk lu bañ a yeexe sam njàng naa tey dama am soxla naa tey nangam daa xew daa cey dem bu ëllëgee ma jàng wala jamono yi dama amul jot ma amee jot rek jàng yëpp nee na ëpp naa def ndax àdduna daa bëri ay yitte bëri boo xam ne yéeme na yitte joo bëril ba daan ko rek jël yitte taxaw ci sa kanam kon faaw da ngay bàyyi li dem defilee rek te dara gën te fara fexe xam lu baax ak def ko fexe xam lu baax te def ko dara gën koo far xaala wax na moom aji wax jane fama xaba fajut ahadun kenn min haa ci àdduna lu baa nataxoo aajoom walan taxaate du egg arabun aajo illa illa arabun dara jëm ci aajo xam na waxkat bu ne àdduna day du du jàkk aajo joo bëreel ba daal ko rek jëneen taxawaat fi sa kanam li fay yaa ngi dund rek di amee aajo kon nag del xam da nga war a jiital ak da nga war a farlu dañ ko jaawale ja nga xam ne amul solo wa am naka am naka yow xat tax tari bu ko amaana mu dog la almani ya tuddee xam la taali ko ci njëkk loolee fa inal mawta naka dee aqrabu ghaibin muy gën jaa jege aji fàddu walaay ati te du dikk illaa baax tatam dara ci bette te nee sax boo nee day bàyyi ba nangam door a jàng day def yitte sàngam mbaa day def day dem nangam door a jàng xamoo sax ndax day jege naam déet ndax yi nga xam ne gisoo leen te jege la lool lool yi nga xam ne gisoo leen te jege la lool lool dee moo ci raw kon kon boo ne day fay yitte sàngam door a jàng boo duut xamoo sax yitte gi dina fa jom déet far dee dikk suma ashaaratoog mu junj ilaa kay fiyati ta addu bi jëm ci melaw teggiinu maxasha si ànd ak sëriñ ba al murabbi day aji tarbiya wal muallimi ak day aji jàngale wal wal axi am mbokk ma xàqan ci dëgg-dëgg wa saaxibu ak àndaali ba sidxan ci dëgg-dëgg sa xaalite mu wax lii neen léegi day bëgg a jëm nag ci wax la boo amee sëriñ boo àndal ci wàllu yàlla nga war a amee teggi nag moom ak boo amee sëriñ bu lay jàngal nga xam ne moom lay jàngal rek moom it nga war a amee teggi nag moom ak itam kan mooy mbokk dëgg-dëgg ci wàllu yàlla ak kan mooy àndandoo dëgg-dëgg ci wàllu yàlla nu war a mel ndax boobu muy sëriñ bi am mbokk moomu nee na yooyu lay bëgg a wax mu daal di wax ne wa waqir na nga fonk wa waqir na nga fonk cheikh ak sa sëriñ raayata tawqiiri day talu fonkeel boo jixalu te nga def ko sa yidan mu dee ab sang xëpp mayel lëxoo ñeel ko xëy ko soyu nee na sab sëriñ bi nga topp te yàlla tax na nga ko fonk waxu fonkeel yem da nga koy def mu di ab sang jàppe sa bopp ak jaam loo am ci lu baax jox ko ko waqdite nga faj alxawaayija soxla yi laxoo ñel ko maa xiste li fay yaa ngi dund bil badri ci joxe wal xidmati ako liggéeyal mastataxte loo mën nee na nag li fay yaa ngi dund daal loo ko mën a liggéeyal ngir yàlla liggéeyal ko ko loo ko mën a jox ngir yàlla itam jox ko ko te yàlla tax yaa am yi dana jublu ne ànd xoo naka moom yaa amarukat na la digal bi an tuwaqira ci nga fonk cheikh ak sa sëriñ wa an taqdi wa an ngay faj xawaa ijixoo ay soxlaam mastataxte loo mën li wax dëgg la sara da lay dénk sab sëriñ bi nga am ne ngir yàlla nga fonk ko te jëpp aay jum am di nga mën koo faj rek nga faj ko ngir yàlla wattani ban na nga teet teet mooy sori wala moytu bax kan ree wa masxan ak kaf daf na ko wax mbóorante waaye moo kaf benn lañ wa saxaban ak coow amaama cheikh amaama cheikh ka ci kanam sa sëriñ idaarum te ndem sàkku nga ak adaba teggiin nee na boo nekkee ci sëriñ bul di ree wala ngay kaf wala ngay coow ngay toog rek te yaru ànd ci teggin ba tey ñu fàttali ne kii jàng bu déggee ñu ne wasaxaban ak coow wala ñu ne isaarumtal adaba te mu bind fii wasaxab ak isaarumtal adab mu ko tax a soppi jéréem maanaam dañuy waxe baat yi ci benn benn ak ni ñu ko bindee ci yooyu day wute rek waaye loolu amu ci solo maanaam na bàyyi téere ko noonu rek xëy na dina mujj xam li waral loolu wala takun tëbul nekk taltifaat ndi borom gestu la day xiifa moom wa daa taxarrukin te borom ak yëngutu ilal jihaati jëm ci wàll yi na boo nekkee fi fi si sëriñ bu nekk di gestu fu ne nga defa xool mbaa nga yëngutu fu ne nga defa jëm da nga def fekk rek am na ko dal wala kat firi te bul bari alkalaama wax indahoo fa moom ba li fi nekk ku nekkal samoo tam dip noppi waa kon li taxoo sa ngir nga làq rusidahoo jubam nga li taxoo sa ngir nga làq rusidahoo ak jubam na boo nekkee fi si sëriñ bul di wax wax ju bari nga téye soo làmmiñ ndax yàlla may la jub ga mu amee wala tusaaxibu te bul àndanteeg moom bilaa tab jiilin ci lul ak màggal fii saman ci jenn jamono kad abi xaadal jiili ndiki baaxut gilemaas ina bul ànd sa sëriñ te joxoo ko cër ba nga ko war a jox ni ma gisee waa jamono ji di ko defee te wax jamono ji mu doon taalibe mu ne ni ma gis ñi ñi di ko defee yow bul def noonu ba àndeeg sa sëriñ na nga ko màggal jox ko cër ba nga ko war a jox laa tëj xalanxu du ko def mis nga saahibin muy kenn moroom xabara moom teew na di jël si dara la nga xam ne laa budda mënta ñàkk mën ko ci moom min dara leen ci lor nee na boo ko jàppee sa moroom lu may nag loolu day lu mënta ñàkk ni ki dem ñoom mën leen a ñàkk toog ci benn béréb ni ki bu ngeen dee tukki da ngeen bokk benn ban bu ngeen di toog ak yu demee noonu yooyu yëpp moom waxta ne na nga déglu àll si la nga xam ne dal na ko taktal na la xale si ci moom mu baa di ren mbir mu koy aji gaawee ko wala abat ko ak doon te bañoon na ko naf su ko sa bakkan ñoo ne lépp lu mu la digal rek na nga gaaw def ko doonte neexul ci sa bakkan it dal di fexe rek gaaw def ko untur te nga xool ilaa maa jëm ci la nga xam ne xat naxaaka tere na la an xoolis ko wa sirata nga daw mën ko ca loolee waccanib te nga teet xawaaka sa bànneex ñoo ne lépp lu mu la aaye na nga ko ne jàkk ba xam ko foo toll di ko daw bul si bul sa bànneex yóbbaale mukk ba nga xat ndigalam mbaa nga waaxu song def la mu la tere yaa an yi dana jóolu ni am na xoo naka moom yan xëyka dana la tere xanit dax jowalis ree wa kasrati naf yi ak bari kaf wa sax bi ak coow bi xadrati yi ci teewu sëriñ bi ci teewaayu sëriñ bi wa kasrati iltifaati ak bari geestu maa xoo ànd ak moom waxan an taji xalaxoo ak walis nga di ko def ka saaxibu ni ki moroom illaa maa dara la nga xam ne laa budda mënta ñàkk min hu ci moom nag darooraati ci xeeti lor yi wa an tastabiha ak ngay déglu jamiixa ma mboolem la nga xam ne yi amurukat na la digal bi ci moom wattu ba jëlexoo te nga koy gaawe wa in karihatu ak doonte sib na ko nafsu ko sa bakkan wa an tansura ak ngay xool ilaa maa jëm ci la nga xam ne yan xeweka dana la tere an xoolis ko wa tax tari sa te ngay wattandiku mënu ci moom wala taqrub ko te bul ko jege abadan mukk ñu waxan ci yooyu rek moom la saraa dina dafa lay aaye dafa lay tere ngay ree baa ngay kaf kaf yu bari baa ngay coow ci kanam sa sëriñ boo nekkee fii sëriñ daal na nga moytu di ree wala ngay kaf wala nga di coow wala ngay bari gestu fu ne nga jëm fa muy aay itam ne la mu lay dénk itam nga moytoo def sa sëriñ mel ne sa moroom rek waaw ko fonk bu baax bañ koo jàppee sa moroom xanaa jàppee ko kilifa li mooy nag loo xam daa mënta ñàkk ci xeet lor yi loo xam loo ko andi loo xam ne ngànt ko indi moom dana nekk ca su ko defee nag nga farlu ci lépp lu mu la digal nga gaaw def ko doonte neexul ci sa bakkan lu mu la aaye nga sore ko doonte neex na ci sa bakkan ba jege mukk daal la mu la aaye wala tasal bul dañ jaa i daa indi borom jox addiya ilay jëm ci moom dimaa ci lépp loo xam ne istatax na mën nga ko min xataayin ci may loxoo ñeel ko wala qalilan doonte aju néew la lim ci saalima ngir topp la nga xam ne war a darat na min annahaa ci naka moom xaddiya tasiidu dana dolli xob ba man cofeelu ka nga xam ne ya waddu dana sopp nee na sa sëriñ lépp loo ko mën a jox ngir yàlla muy addiya rek jox ko ngir yàlla damañ koy xeeb ndax yàlla moom xeebul ñëwut sëriñ jitam sëriñ jitam bu dee sëriñ it ngir yàlla rek maanaam bu dee koo xam ne sëriñ mat la du xàmmee la nga koy jox niw naam bari na ci zahir te wax ni addiya te yokk cofeel yokk nga mu yokk cofeel moo tax ñu bëgg nga di ko def wama lépp loo xam ne raaytahoo gis nga ko yam yi lu muy jëng lahoo jëm ca fii amrin ci mbir mu mën di doon ku nekkal jaata xarin di boroomu nattale lu jaaka ñeen loolee nee na deel jéem a dàkkaafu bëgg-bëggam lépp loo xam ne gis nga ne ca la jëngam jëm maa ca la bëggam jëm nga di ko dàkkaafu di ko ko wutal di ko ko toppatool waji taxi dannati na nga farlu baax du ci gannaaw ba fii isaalihi ci àggaleem fa inna xusnal fi'li naka rafetuk jëf fa inna xusnal fi'li naka rafetuk jëf fii ikmaalihi nekk na ci matalam waaw nee na na nga farlu ci lépp loo ko tàbbalal ci lu baax rek nga fexe ba mu àgg ndax jëf kat balaa baax dëgg-dëgg daa àgg tàbbal wakum nekkal muxtariman di aji ormal li kulli man ñeel képp koo xam ne taalaq aju na bii ci moom def leen moo xam ñoom la ay soxna maam waa kër daal xabiran ak ay jaam wa siwaahum ak kudul ñoom mutlaxan ñu mën di doon laxallahoo ndaxlee moom ya joodu dana tabe lakka ñeel la bi nadarat ñu ci am xool tanaalu boobu da nga am ne bihaa ci moom maa la nga xam ne turidu turidu da nga ko namm nee na moom sax ba képp ku aju ci sëñ bi moo xam soxna la moo xam doom la wala mbokk wala sax ba jaam amee koo xam ne jaam ni ab jaamam la wala sa mbokkum taalibe la yëpp rek na nga leen ormal te jëmmi sëñ bi tax ngir yàlla sëñ bi tax su ko defee kon xam nga du ñàkk sëñ bi xool la xoolum ngërëm boo xam ne da nga ci amee lépp loo bëggoon bi nadratin ci ab xool yooxu nii ka bopp dana la dawlu loo mooy laa ko sa borom bi haa ci moom xan katratil kaddi walis bari coono su ku nekkal mun tabi xan di aji yeewu nee na boo defee nii mu la wax xëy na sëñ bi xool la xool boo xam ne dangay jaaree sa aajo faju te doo sonnati mukk fa nadratul xubbi xoolub cofeel mina cheikh yi tukkee ci sëriñ bi ilaa maridi yi jëm ci ab taalibeem yow moom almasaya mooy ngëneel ya wal xulaatay kawe ya ndax nee na sëñ bi xoolub taalibeem xoolub cofeel moom lu rëy rëy la jàppal ne sax mooy lépp ngëneel mooy lépp kawe mooy lépp ca la nekk daal dara tollu woon wakku nekkal la da cheikh yi tu sëriñ ba ka moyti niki am néew wadi a bëgg tegeef na ko wala nga ne tëraleef na ko bay na yedday xaasili yi ci diggante yaari loxoy aji sangam tan tabiha kon nga jëriñam ne boo nekkee ci sëriñ danga ko jox sa bopp wër-wër ma lay defal ak dindil fooy jëm moo la fay jëmale mel na néew boobu nga xam ne ko tëral am ko koy sang ka koy sang rek moo koy wëlbati fu ko neex jëme fa waaye néew ba du jekk naa ko jëmale ma nii du ma tëddee nii naa tëddee nii loolu xam néew di ko def nekk lal moom mu ñëw nag ci sëriñu jàngale wa in takun dem na ngaa nekk daa taallamin di borom xam lu lil xilmi ñeel xam-xam foofu tax yi na ngay sàkku lillahi ngir yàlla ridal muallimi ngërëmal aji jàngale ja na boo dee wut xam-xam na ngay sàkkuwaale ngërëmal ka la koy jàngal ka lay jàngal xam-xam bi del sàkkuwaale ngërëmam wakkunte nga nekk la daa cheikh fa sa sëriñ kal moom loog nit ku ñu moom ku ñu moom moo di ab jaam rek tabux kon nga jotee bi ci ca loolee darajatal muluuki darajay buur yaa nee na boo nekkee sëriñ bi lay jàngal na nga mel ne ab jaam ngay jàpp sa bopp ab jaam daal kon loolee ci la yàlla yëkkatee ba nga amee darajay buur yaa waa alam na nga xam bi am na nafa ci naka njëriñal xam-xam laawu naalu dee fu ko am illaa bi ijlaalin dara ci màggal way xam ni xalaamaa ci la nga xam ne xaalu wax nañu ko mu ne nee nañu kat sa sa boromul xam-xam mi ngi takku ci na nga màggale ka la ko doon jàngal ak na nga màggale borom xam-xam yi ci des te yàlla tax noonu rek la sa njëriñal xam-xam di toll di xadri ijlaari ko ci kenn sa màggal rek cheikh ak sa sëriñ dafoo su ngay tuufoo maanaam ngay amee bi maa ci la nga xam ne turiidu da nga ko namm boo bisite ci loolu it taxoo su ngay làqi aliyum na barke ne comme ni nga màggalee sa sëriñ bi la doon jàngal rek noonu ngay amee jëmmi xam-xam bi noonu ngay amee itam barkeb xam-xam ba fokk lu mën képp koo xam ne la mu rëbe gërëm boo wut cheikhahu sëriñam salaayo naa la kon du am fii tilmisi yi ci dongoom maa la nga xam ne ama la mëbatoon na ko nee na boo amee sëriñ bi lay jàngal te fexewoo ba am ngërëmam yow itam bis boo amee donga bis boo demee ba am xam-xam boo jàngale it yàlla di lay fay loola boo amee donga yow it doo ci am la nga ci bëgg waaye dagam defula woon sut sëñ lu tax mu gërëm la amatoon ci yow la bëgg daal yow itam bu ayub donga doo ci am la nga bëgg nee na yàlla la faye loola ba li fi nekk rubba saxsin baraana jëmm yoo li nu dana feeñal bil xoloomu ci ay xam-xam wala woon naa lu te du am man koo xam ne yar kanu dana jàng ilay jëm ci moom nee na baraana ko am xam-xam ñëpp xam ne am na xam-xam waaye lu tax kenn laaj ko ko te kon sax kenn ñëw ne ko jàngal ma ko da ko waral nag mooy ñàkk barkeb xam-xam xëy na kon xam-xam baa barkeelut nde su barkeeloon faaw ñu soxal ko ci laaj ko ko ak mu xamle ko waaye kon ñàkk am ngërëmu sëriñam ba ko doon jàngal xëy na moo ko teg loola ah dana yal nanu musal allahu yàlla wa iyaakum ak yéen maan boole seen dañ ko lixiw nañ ci bépp xam-xam lam yan faxan bëgg jëriñut xaaliman aji xam yal na nu yàlla musal te musal leen ci bépp xam-xam boo xam ne jërëjul borom mooy gàttal bi yaa ni dana jublu ni ànd xoo naka moom yaa am rëkkat na la digal bi am tux diya ci nga addiyaal ilaa xew sa ko jëm sa sëriñ dinaa ci lépp loo xam ne istatax te mën nga ko wa in xàll ak doonte néew na wa an tata xarraa ak ngay nattale nattale mooy gëstoo ko jéem a xam maa la nga xam ne raay taxoo gis nga ko yéen ngiru muy jéng ilay jëm ci moom fii kulli amrin ci lépp mbir nee na la may digal rek lépp loo mën a jox sa sëriñ bi nga amal ngir yàlla loo ko mën a jox ci addiya nga bañ koo xeeb te jox ko ngir yàlla nga farlu itam ci lépp loo xam ne dangaa jàpp ne ak bëggam la nga di ko dakkaafu di ko jéem di ko ko defal wa an tajtahida ak ngay farlu fii isaalihi ci àggaleem nga góorgóorlu ba loo ko tàmbalil fexe ba mu àgg ndax tàmbali lu baax sax baax na waaye loolu njëriñ dëgg dëgg nag mi ngi nekk ci àggale ga wa an taxtarima ak nga ormaal jamiha mutaalliqaatihi mboolem way aju ci moom min ahlin ci ñoom wa abidin ak ay jaam wa xayrihim ak yudul ñoom laxallahu ndax lee moom an yandura mu xool ilayka jëm ci yow nadrata mahabbatin xoolub cofeel yux nii ka ba dana la doyluloo bi xaa ci moom mawlaak sa borom waaw nee na da ngay fexe ba sëñ bi nga am ngir yàlla lépp lu aju ci moom rek ak képp ku aju ci moom moo xam waa këram la wala sax sa moroom dong la wala sax ba jaam amee ay jaamam mbaa lépp lu moom rek na nga ko fonk ngir sëñ bi na nga fonk ñoo ñëpp ak lépp sëñ bi ngir ngir yàlla xëy na kon du ñàkk mu xool la xoolub cofeel boo xam ne da ngay jaare rek sa aajo faju doo sonnate fa inna bi xadri ijlaalil xaalimi naka ci kenn màggaluk aji xam ja yakoonu lay nekk intifaaxul mutaxallimi jëriñub aji xam lu ja loolu moom daa dellu ci sëriñ bi lay jàngal na nga ko war a fonkee mu ne nag kenn ni nga fonkee sëriñ bi lay jàngal sa jëriñul xam-xam noonu lay toll nag wax yi dafa ñàkk a jàppaloo ni mu war a jàppaloo foofu ci saraa bi ndax daa jékki-jékki dagg rek fi mu doon wax ci sëriñub tërbie bi daal jékki-jékki dugg ci saraa sëriñub jàngale bi teel muy teqalee waxat ki la waxees na ne araada naa gis aw jabal asiyaay gën jaa wari yëf yi wa aakadahoo tey gën jaa seet likoom xàqan ci àq xalaa kulli muslimin war bépp julit xàq muallimin muy àqi aji jàngale ñu am na ko noonu mën daal defe naa ne warte fi nga xam ne moo gën a fadliku te ci nit ki war a gën a taxaw mooy àq ci mu ameel ka koy jàngal àq ci mu ameel ka koy jàngal daal defe naa ne mboolem xeeti àq yëpp moo ci gën a farata te ci la war a gën a taxaw